jikko yu tedd yu kawe yeeso wara roy ci yonente bi salallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam tuxale ko ci mbindum sëriñ mousaka benn kum dajeel moo lay jëkkanuy si booleeg di saafohantee ka jàmmante kum dajeel moo lay jëkkanuy si booleeg di saafohantee ka jàmmante benn ñaareel bi waslu àqi boroomam waslu xaqi boroomam ñett waslu xaqi moroomam ñeent waslu xaqi dëkkandoom juróom nangoo muñub xiif bay leba kay tayle nangoo muñub xiif bay leba kay tayle juróom juróom benn néewi mbóorent néewi mbóorent juróom ñaar dëddu àddina juróom ñett jublu alaaxira juróom ñeent waaraate fukk saxal naa fi la guddi ci rakk yu gudd ba tànk yay metti saxal naa fi la guddi ci rakka yu gudd ba tànk yay metti fukk ak benn gàttu xutbab jumaa gàttal xutbab jumaa te di ko wax ca kaw gàttal xutbab jumaa te di ko wax ca kaw fukk ak ñaar man gan fuk ak ñett sopp ay dëkkandoom fuk ak juróom di saafaray rag tey faj lor di saafaray rag tey faj lor fuk ak juróom yërëm ndaw fuk ak juróom benn teral mag fuk ak juróom ñaar fayal nit ñi seeni bor fuk ak juróom ñett di fat jirim yi fuk ak juróom ñent di may ñi lompoñ di may ñi lompoñ ñaar fukk di laq bayo ak miskin di laq bayo ak miskin ñaar fuk ak ben di topoto bayima yi di topoto bayima yi ñaar fuk ak ñaar di wax deug fu mu di wax dëgg fu mu toll ñaar fukk ak ñett maandu lool bay safarab maandu lool bay safarab ñaar fukk ak ñeent du wor ab dëhël du wor ab dëhël ñaar fukk ak ñeent du lekk du lekk du lekk ram mbaa sarax du lekk àq du lekkum ràmm mbaa sarax loolu mooy jikko yi nga xam ne génn naa ko ci bindu tay bi ci bayit yooyu nga xam ne sëñ Bassirou Touré indi na ko jële ko ci téere bii di xilaaratul marjaan te baat bu ci nekk noonu lañ ko tibbee ca biir way wa génne ko kon kenn du yonent bi sallallahu alayhi wa sallama te des na yeneen jikko bokk na ci yi ñu romboon ak yi ñu agseegut kon dal wa attiran na barixal mustafa karaman wa attiran na barixal mustafa karaman بهرن بعرف arfin منك يا الله wa salliyanna bi taslimin alayhi bihi wa rawixi ruuxa birrayxaan yallaahu sallallahu alayhi wa